alaikum Dakar alaikum Sénégal président Aladi Malik Gakou Taxi maire commune bi ñu taxaw Notaire Aminata Kanté Nous ñi honorable député Malik nuyu tamit imam guy gii mi nga xam ne moo initié lii ak magam liiru jaan bu ma leen tuddee day mel ni kon tudd naa ñëpp ba tax na nag ñu jiital nuyoo bi ci ñaar ñooñu kon nuyu nañu kon sportif ak lutteur yu géejawaay yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp dooree rek wax ji nuyu tamit samay collègues de la presse

pour dootul amati lu mu lekk dootul am lu mu naan ay entreprise am tëj dootul am sax lu mu fayee ndox ndax koo dóor impôt fukki milliards ak benn yaakaar naa ni kooku moom bëggoo dara lu dul faat ko mais yàlla nag moo yor doomu aadama boobu léegi mi ngi lekk di naan te li ma leen di wax nii léegi léegi léegi léegi léegi mu mat ñetti atu yàlla wala mu ëpp ko waaye toogul ci rajo yi wax ko toogul ci télé wax ko jàmbatu ko ba ci ministre affaires étrangères bi mu ñëwee assemblée nationale nee naa que lu tax ngeen ubbiwaat ambassade Sénégal ba nekk ca poloñ te sénégalais yi nekk ca Pologne ñiy liggéeyee ci biir ambassade bi leen gën a bëri te dégg ngeen ministre ba nag lan la ma ca tontu loolu it nee naa ko du dara lu dul xeex président El Hadj Malick Gakou kon nag Macky Sall ñi mu jël. intention éliminer leen kii daf cee bokk waaye heureusement am na léegi ku ko wax mooy Fifty ci sen mu wax nag dafa leer <coughs> man daal dama set dama set dama set neex naa wax waaye koo xam ne dugg na ci biir bëri ko diw tiir génn set wi ah kooku nag moo set parce que ay man dama set dama set dama set ku ne mën nga kaa wax waaye koo xam tuy président de la région de Dakar nekk un fonctionnaire de l'État nekk directeur de cabinet suñu papa ndem si yàlla ma jéen ministère infrastructure nekk ministre des sports nekk ministre du commerce yaakaar naa ne nit kooku liggéey nga ci état gérer nga ay milliards et milliards milliards et milliards milliards waaye ba fii ñuy àddoo loo mën a waxal alaaji mali Gakou nekkul terrain bi état moo ko jox mètre carré bi état moo ko jox wala oto bi état moom moo ko jox kon Macky lenn leen doomu la mën ci waa ji taxaw di mali Gakou mooy di ko dóor ay impôt ci ay société ba xaalis bi dem ba toll ci fukki milliards ak benn onze mu ne da koy redressement fiscal pour Malick Gakou bu mu amati lu mu lekk bu mu am lu mu naan bu mu am sax lu mu fayee courant bu mu amatee lu mu jëndee essence ay oto naka jaay na torox waaye am na ñoo xam ne mën nañoo fa xasalu waaye ñu daal kii nag guy gi grand Assane Diouf imaam maa ngi lay nuyu Assane Diouf moomu nag lii Macky Sall di def ay citoyen sénégalais dong la ko def li ko dal nii dara yóbbeewu ko lu dul xeexal Sénégal ba ñu fekk ko fa muy daanee doole indi ko te xeex nag dafa bëri façon ñii dinañ jël jaasi ñiy jël yëpp ñiy jël ay télé di wax ñii jël ay rajo ku ci nekk am nga benn pàcc boo féete côté bi mu nag di wax engagé wu lañ ko fekkee foofu jëlee ko fi mu doon liggéey indi ko senegal mu ñëw toog fii ak ñun di doomu Géejawaay tey taxaw def lu rëy mooy ànd ak magam ji nga xam ni yaayam la woon ak sekkam muy maamu président Malick Gakou bi nga xam ne moo ko yar fii seen kër nga ne la ngay séen kon nag Assane Diouf mention spéciale. waaye tey lii sportif yu Guédiawaye def dafa rëy parce que guy gi heure bi ngeen ko defee fii la safe mbëru Guédiawaye dañoo war a jàppale Malick Gakou sportif yu Guédiawaye dañoo war a jàppale Malick Gakou lu ne dégg ngeen ko waaye timing bi agenda bi ngeen nekkoon fi ngeen ko defee fii la ñore te fii la baaxe fii la kii soxla waa ji pare la jëm Assane Diouf bi jógee Amérique ne ma maire par force ñenn ñi dañ doon wax naan waa xanaa ñii ñoom gëmuñu yàlla ba naan par force ana yàlla ma ne Cheikh Abdoul Khadir Jeylaani nii la ko doon defee ak boromam xam naa ay secret yoo xamante ni nii danga may defal lii wala ma weer la te am na loo xam ne boo ko waxee jaami yàlla yi dootuñ julli duñu wóor te buñ dee dem àjjana. yàlla ne ko kaa waxtaan waaye booy wax am ñoo xam ni ñu jëlee ko fu gàtt fii lañ koy jëlee fii waaye ñun li ñoo wax ci xam-xam lañ ko teg teg ko ci sariya teg ko ci xaqiqa ñun fa lañ ko teg yàllaay may waaye doone ko may ma lii force da la koy may force moom da koy joxe rek te ñaan mooy ngànnaayu jullit waaye nañu wax yàlla nañu defal kii président waaye par force. président par force. président par force. président par force. président par force. président par force. président par force. président par force. président par force. li tax ñu wax leen loolu. gis nga kii nekk fii ci bopp réew bi mënu fee nekk te nit ñi duñ ko tudd. bi mu tolloo fii. moom Ablaye Wade dane woon falu wala mu dee mbir mi engagement la ak mu jaral leen ñin nag jaral nañu lu weesu gis nga waa Géejawaay président El Hadj Malick Gakou dem palais ñin la ko gën a jaral moom man boobu déggoo leen ma Géejawaay ci boppam banlieue Ndakaaru Sénégal Malick Gakou dem palais engagement bi ñu ci àndal moo gën a garaaw fop moom mi ñu war a yóbbu pale sax nekkee pour wax leen sénégalais fan lañ toll ma waxaat leen ne leen waaye njiitum réew daal taamu nañ ci koo xam ni ku sëqat nga dóor ku sëqat nga yóbbu police ku sëqat nga tëj ci biir kaso bi waaye njiitum réew buur da ngaa war a am yërmande guur nguur nguur toujours dafa nga wara social sa xol bi am lu muy sax bañ ak nga am loy jombale sa bop ablay Wade de am na fu mbir mi don tollu mu ne gaay grawul bay leen ñu manifester 23 juin bu ko neexoon du am grawul bay leen ñu dem grawul bay leen ñu dem ki di président El malik ak Gakou chaque jour mané leen barki mu la ko wax ci télé ki ko gën di merloo ak di ko di ëpp lu muy xulok mom Sénégal Ahmed Aïdara parce que ñun ay jeunes lañ moo ñu mag fop nous avons le sang chaud moo tax si élection locale yi ak député yi dama ne ko président bul li ñëw ci campagne bi ñii bàyyi ñu fii rek ñu gérer leen ñun ñoo leen di gérer bu ñu demee deux mille vingt quatre nga dem gérer mag jag man ma gérer la. instant bii ñu toll nag. instant bi ñu toll responsable locaux yi la ñuy moom mu dem gérer ñu mag ni ñu koy gérer nag nekkul dara lu détermination engagement ak li Abou Thioubalo wax léegi fii koo xamante ni nii nag raam rek lay def amul velo amul saret amul oto amul dara te foo jëm mu boot la di daw ak yow waaye kooku bu amee oto yóbbaale la ñin ñii géejawaay nag man rek war naa doy exemple man kese doy naa exemple bu mat sëkk ak barke ne kii kuy jéggale man rek ko xool ci man rek rek rek rek ne gàkku mi jéggal bi muy jéggal amet yi kii mën naa baal ku ne waaye gàkku mi social bii nekk ci moom nii mu koy defar amet nii kii mën naa dimbali ku ne waaye gàkku muñ gii muy muñ ak li koy def yëpp man de li mën mënu ma ko doy na sëkk pour ñu jël ko jox ko réew mi réew ñii nag ñun li ñu mën danañ ko def gars yi àndoon ak Macky fañ toll woon 2012 ñun fi ñu toll la gën a sës parce que réew mi tey la gën a métti que 2011 nit ñi damm nañu tàyyi nañu sonn nañu. fu ma waxee rek yenn ci samay mbokk benn benn wala waa Géejawaay nag rek maire bi gars yi mbaa ma ki dina indi délégation spéciale sa waay négocier rek boo yoree maire yi moom ma ne leen na ko nangu na ko jël parce que moo ne ngiliñ mbàcc rek mu dàq la la ca maire ba indi délégation spéciale na ko jël boo waxee ne gàkku ngay àndal perte maire bi waaye na ko jël si ci lënd bi

des finances ca jamonoom daaw Daouda Diallo ne ko suñ maire bi lu tax ñun ñii adjoint maire yi sax ñuy fayeeku te Ahmed Aïdara mënta fayeeku waaye du ma ko sëqat duma ko yuuxu duma ko onku parce que fukki at ak juróom-ñett benn liggéey nañ ko ñaar yàlla boole nañu ku mel nii boo xiifee boo ñëwee ci moom lekk ba suur kon Macky Sall du ma xiifal wala mu tiital ma wala mu xoxatal ma ba ma caalik daw ci moom bu yaakaaree mairie bii reer day fande pale nga jëm pale la jëm pale la jëm pale la jëm dama ne président par force président par force président par force par force président par force président par force tey tey tey jii nag tey jii tey jii escorte fii dañu ne dañuy ñëw fii buntu kër Malick dañu foogoon ne sax lu toll nii ci ay nit du fi nekk nañ ñoom ñoo fii ñëw taxaw si buntu këram wax ko ne ko dañ lay investir comme candidat à la présidence de la république en 2024 ah loolu moom moo tax ñu ñëw fi tey waaye dañ ne xew mi le 19 la terrain njaarim estat njaarim danoo bëgg le 19 fu waay nekk ci biir Guédiawaye gi fu waay nekk ci banlieue fu waay nekk Dakar nekk Sénégal ngeen ñëw ñu gunge sportif yii te jàppale kii di président El Hadj Malick Gakou président El Hadj Malick Gakou mii na la ah ñenn ñi xëj na dañ kaa sori mais gis nga léegi le président supporteru Dalifort mi ngi nii jóge fa la ñëw ne Malick Gakou géej waay kese moomuñu ko. caaroy Biafra bàcc Biafra mi ngi ne le waaw caaroy Biafra tam ñu ngi ne le taxaw démb lañ ko ñooñu tam ay escorteur démb lañ la wax ko yëg dañu ne ànd ak moo ànd ak président ñëw ne dañ kuy champion fii ci Guédiawaye jàppale nga ko barki démb deux es dama ne tuuru Guédiawaye ngi nii tuur ba tuur ba tuur tuur baa ngi nii suñu Kumba Kasala ngi ku fii falu buur ku fii falu buur dara la teg loxo de man de keroog ba ma ne ko président man damaa bëgg rek nga taxaw rek ne maay sa candidat man damay gañ mais yeneen yi des moom dinaa ko mottali yeneen des dinaa ko mottali waaye man nee man di nga doon maire point Balla Gaye keroog daa ñëw ba ci moom ne ko président dama bëgg rek nga ne dinaa doon roi des Balla Gaye 2 laa daa ñëw ne Malick Gakou dama bëgg nga ne ma dama bëgg a nekk roi des arènes 2012 président Gakou nekk ba ngay door école de lutte ñu defar école football Cheikhou Diop ci bunt bi buntu ko yom jigée ja ndem si yàlla gi defar 16 basket club xale yii jaar fii léegi ñuy Malick Gakou ñett ñoo fa nekkoon ñu defar ñu commencé bëri ji di dem Assane Diouf dajeeg suñu Issa Pouye bu njëkk ba ba mu ñu daane ñuy raam di ñëw suñ combat ak ñoom Ousmane Diop suñ combat ak ñoom Coly Faye ay ñoom Mbaye Diouf boobu suuf amagul séntati nga am Demba Diop fii la ñuy gàddoo xale bi dugg ci ay quarante amuñu oto moom ñu wutal ko oto bu ndaw li dara bari kii yelu xale bi ne ko dañ la def roi des yaa ko def roi loolu démb na te man ci école de lutte Balla Gaye laa bokk bokku waalo bokku papakan bokku ëllëg ci biir fii école de lutte bu fi ne man Ahmed Aïdara booy dem esat ma ànd ak yow góor ñu nii ku fii gaynde fii ci géej waay laa lay wax ni léegi merloo nga ko jàppale na kuy gaynde merloo nga ko

ñu sànni leen xeer mu am plusieurs blessés Malick Gakou taxaw si digg stade ku ne la daa ragal daa ragal xamoo xoolal ma ko tooñ doomu ginnaaw raay comme ni nga ko waxee juddoo ginnaaw raay yaroo Pikine dëkk fii Géejawaay mënoo ragal moom kay da ngay muñ rek da ngay muñ di bàyyi yooyoo fi jeex moom nag daa am ay généraux te ñoo ko wër nii tey suñ bakkan bii. léegi-léegi ñu naan diw man de damaa jox sama bakkan bi diw mosuma ko jox kenn waaye fii ak déwén buñ dee bu ñu bett danañu xeex ba dee pour Macky Sall jóge fi Malick Gakou remplacé foofu bii di ñëw nañ leen préparé wu waaye fal sa mbokk fal sa doom rawatina mu jàng nag kii docteur en sciences économiques wàllum koom-koom lii doxal réew da koo jàng fi jàng yem moom fa la yem moo dàq jàng Macky fukki junni yoon fuuf président Alaaji Malick Gakou est le seul responsable ci jamonoom bi Macky Sall di dem présidentiel mu ñëw fekk ko këram jël xaalis may ko ne ko maa la te boobu fekk na moom mii am na candidat muy Moustapha Niasse waaye moom pour moom ku nekk ci xare ku ne war na laa jàppale gàkku képp ku mu gis ngay dem nii rek moom pour moom war na laa jox dara barki démb dama ne ko li nga doon social yëpp social nga man ba ma demee si élection locale yi bi arbine prib benn marché daaru xaan laa diggoon seeti seetiwu ma leen seetiwu ma leen seetiwu ma leen ba campagne bi commencé mu dugg fa ma yëkkati téeméeri junni cinq cent mille jox ko présidente bi ne ko bu yàgg laa fi waroon a ñëw cinq cent mille points yi tundung la ci local yi ma ne ko parce que li ma waroon a local euh, euh, euh, social yëpp ci juróom-ñaari at yi social nañu dem nañ ci hôpitaux yi def nañ lu ne fi mu nekk nii rek lépp lu ma yor sama bopp laay waajal jënd essence togg jublu ci sama bopp dem stade wañ waaj mu tëdd duñ fi joxeete dara

lycée Limamou Laye yaay parrain bi yebul jàkke yi yebuñ la Jean Paul II bii église bii Église, Église. église bii statue Jean Paul II bii bu Jean Paul II génnee àdduna moo ko defar Jules François Bocandé bi mu génnee àdduna juróom benn million lañ tabaxee bërëbam ba mooma dama ne waxuma jàkk ni jumaa muy église lépp luy lieu de culte laa la wax fii waajaay maay ay bëtam maay ay tànkam te fii ak le 4 février bii tournée nationale bu commencé nit ñi dañ ci xam dara yow da tëdd noppalu xam li naan day tëdd ràcc noppalu moom lay def liggéey bi xale yi ñoo koy def la jeunesse de Guédiawaye kon nag le 19 au stade Ndiarème fii. naka ñëpp ñëpp ñëpp préparé naka ñëpp préparé am na yenn yoo xam ne nag waxu biir néeg la waa ji insha allahu rabbi day doon président bu yeboo ngeen xelu te képp koo xam ne yaa ngi fii Dakar fii Dakar ñu jokkoo ak yow ak ci biir réew ñi ma jot a woo bi lii déclenché woo ak léegi ëpp nañu fanweer ci ay kilifa laa wax tey jii waa Touba ñoo ñëw sama kër billaahi wallaahi wa taala ay kilifa bëgguma tudd seen tur soo waxee dañ naan la réew mi fi mu toll nii nii nii nii nii nii Alaaji Malick Gakou moo ko mën a sauver neexoo naa nit ñi juboo naa nit ñi yaru na baax na du wax lu bon alalam du ko boole ak kenn kon nag waajaa ngi wasalaam aca nombar waajaa ngi ala car